Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. tey fi may njëkkee mooy ci père père Mangone père Mbaye Mangone lañ koy wax xawma mooy paa boobu di nekk euh, seen TV tamit ànd ak ñoom Sofia ci laay njëkk a wax parce que euh, seen émission bi passé dama ko doon seetaan. bi ma koy seetaan ba ci fin bi maanaam ci fin bi sax laa duggee ci émission bi seetaan ko dégg muy wax comme marque oto bi mu yor yooyu naan 4 x laa bëgg temps yi nangam nangam ma dégg Sofia bi nekk seen TV naan ko Guy Marius de xale yi dans 24 heures jëndal nañ ko ab 4 x ma dégg Père May ma ngóone rek commencé jug waaw man ak Guy Marius kan moo ëpp njariñ ci réew mi Père May ma ngóone mag nga. mais sa baay sax gii Marius moo ko ëpp njariñ ci réew mi gis ngeen seen tappale yi ngeen nekke ba ko bàyyi leen ko bu leen def di toog ci tele bi mat ñu nekk suñuy kilifa wala ngeen nekk suñuy maraw mu bàyyi xam lu ñu xamutoon démb ngeen di ñu ko xamal tey tax ngeen bëgg a tonki suñu xef yi loolu duñ ko nangul kenn loolu duñ ko nangul kenn du sëriñ du doomu sëriñ du homme d'affaires du politicien du kenn ku nekk ci réew mi moo xam ni tey jii dinga jël ay wax teg ko foo xam ni waroo ko faa teg wala ngay jël sa bopp yow mi nga xam ne amoo benn njariñ ci réew mi di tëkkaleeg sa bopp koo xam ne tey jii nii maanaam askan wi xam bin ko xam du comédie du sàcc du fen du ger du lu ñàkk fayda taxaw bëgg réewam nekk patriote di ko xeexal a tax askan wi bëgg ko ba tax askan wi delloo ko njukkal loolu Guy saaña am na activiste yu bari yu nekk fii yu nekk Sénégal barki arxuraan li may wax sénégalais yu bari xam nañ ko ñaan nañ fi ndimbal ba tàyyi Guy Marius Sagna kan moo mës gis kan moo mës dégg Guy Marius Sagna taxaw ni nangam laa bëgg amul Guy Marius Sagna oto oto oto bii ñu jënd fukki oto mérito nga ko danga koo méritoo yow mérit méritoo nga sax yow lu ëpp oto méritoo nga ko méritoo nga patriote yi tabaxal la kërug un jox la ko méritoo nga ko gii Marius Sagna yàlla seede na ne yow gii Marius Sagna méritoo nga sax lu ëpp loolu mais senegal moo nekk réew moo xam ne dafa am nit ñoo xam ne xamuñu seen bopp Père Mbaye Mangone ci genre nit ñooñu la bokk parce que boo xamoon sa bopp dëgg-dëgg yow bu nee Guy Marius Sagna war ngaa xam sa bopp xam Guy Marius Sagna kon yow réere sa bopp a tax nga taxaw naan sénégalais yi mën a Guy Marius Sagna kan moo ëpp njariñ ci réew mi bàyyi leen seen caaxaan yi télé boobu ñu la teg teguñu la fa ngirub xam-xam déedéet yàgg ngeen a galère yàgg ngeen a nekk ci réew mi di taxawaalu seen làmmeñ yi lu ngeen am ci réew mi fu ngeen toog tey ci réew mi seen làmmeñ yi moo leen fa yóbbu mais du seen compétence du jàppale gu ngeen jàppale askan wi du soutenir bu ngeen soutenir dëkk bi déedéet bàyyi leen caaxaan yooyu loolu benn parenthèse la boo xam ne dama ko doon wax ci per Père Mbaye Mangoné faneen fi may ñëwaat mooy ci maamadu Ibra Kane mais dama ciy dugalaale sëñ Abdou Karim li tax dama bëgg ngeen di fàttaliku bu baax li tax may wax ba ni sëñ sëñ Abdou Karim Assane Diouf ay jamono biñ koy door a rapatrier mu ñëw fii mas na fee seeti sëñ Abdou Karim Mbàkke booba am na lu xewoon sax Tuubaa li may wax ñi ko xam dinañ xam lii may wax Assane juuf keroog am na sax lu mu yóbbaalee loon sëñ Abdou Karim ab sërica bi mu demee ci yéen bi nga xam ne fi la toog di dalal ay ganam Assane juuf ñëw nuyu ko sëñ Abdou Karim faalewu ko bu dee yow Mamadou Ibra Kane loola nga gisoon jëf jooja nga gisoon sëñ Abdou Karim def ko Assane Diouf tax tey mouvement bii di le peuple nga xam ne ku nekk Brésil ak ku nekk Argentine ak foo mënti nekk ci réew mi ci mouvement bi nga bokk sunu coordinateur ñi nga xam ne ñoo yor mouvement bi muy ku ci mel ne Assane Diouf moomu ngay wax ak Clédor Sène ak Abdou Karim Gueye ak ñoom Dame ak ñeneen ak ñeneen ñu ci bokk dem gisi sëñ Muntaxa nga taxaw yow di kaas loolu di ko naqarlu fan nga ko teg sëñ Muntaxa du sëñ Abdou Karim loolu sëñ Abdou Karim defoon ñu bari tey doon nañ ci kaañoo Assane Diouf mais gàccey sëñ Abdou Karim la dëgg moo neex yàlla dëgg li may wax chaque jour dëgg sama baay moomu ko baayam moomu ko yonent bi yàlla yónni moomul dëgg dëgg yàlla moo ko moom loolu defatu suñ Abdou Karim la parce que Assane Diouf bu jàppoon ni moo gën sëñ Abdou Karim du ko seeti di ko yóbbul sëri sëriñ dafa jàpp ni sëñ Abdou Karim a ko gën moo ko gën a jige yàlla kon mbon bu nekk ci Assane Diouf sëñ Abdou Karim war na koo mën a accepter dugg ak moom cib néeg bu ko mënta wax ci public ni ko dégg naa la foo waxe tudd sëñ Fallou te sëñ Fallou moomu mooy sama waajur te sëñ Fallou nii ak nii ak nii mais toroxal boobu noonu nga toroxaloon Assane Diouf ci kanam moo tax yàlla sunu borom du nit yàlla du nit yàlla du nit bu ngeen di def dee leen sóoraale suba sëñ Abdou Karim mës sa yaakaar ci àdduna Assane Diouf xalifa général de Mouride dina ko euh, dina ko recevoir musu koo yaakaar. parce que bu ko yaakaaroon xamoon ne Assane Diouf xalifa général de Mourides dina ko mas a recevoir Assane Diouf du dem seeti sëñ Abdou Karim mu toroxal ko ci digg ay nawleem ngir lan saaga yu Assane Diouf doon saaga ci internet bi saaga yooyu tey Assane ba bana ko ñépp xam na ne Assane Diouf position bii mu jël bu bàyyiwul saaga mais nam daan jalaalee ci ay laayifam bana ko te loolu seeti bii ñu seeti sëñ Muntaxa am na lum ci def ak nit ñi nga xam ne ànd naa ñoom ci ngir réew mi gis nga nit man sëriñ sëriñ yi sëriñ si ngeen di gis nii sëriñ bu ma wóor ni waxuma la man de mais bu ma jàpp ni man sama baay wala sama taawu baay wala sama rakki baay wala sama grand frère bu ma bokkal baay wala ndey ak baay ma jàpp ni moo la gën a ragal yàlla barki alxuraanul karim topp ko di ko sukkal di ko raamal moo ma gënal topp la inna ak akramahum indallaahi atqaakum la yàlla wax ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla amul benn hadis bu yonent bi bind kaamil bi cent quatorze su yi amul benn aaya bu ngeen di firi ni yàlla nee na ku sant nangam topp leen ku topp sant topp leen ku sant mbàkke topp leen ku sant ñas topp leen ku sant siis topp leen ku sant lay yàlla waxuñu ko fenn ku sant caw yàlla topploo wun ko kon buñ leen joxee cër wormaal leen di leen jox sunu xaalis di wax ci yéen lu rafet bu ngeen amee appel bi bu jotee wala màggal jot wala gàmm jot wala ziar général lu mën a jot ñu dagg sunu yitte ñëw fa ànd ak sunu njaboot da ngeen ñoo war a respecté loolu lu ma doon wax ci sëñ abdu Karim la na ngeen seetaani waat vidéo boobu vidéo bi nga xam ne Assane Diouf seeti woon na fi sëñ Abdou Karim ngeen gis toroxal bi ko sëñ Abdou Karim toroxal billaay dooy caaxaan da koo toroxal mais mënoo koo toroxal sax danga ko doon jéem gis ngeen combat bii ñu nekk képp ku ci mënti nekk noo mën a mel ak lu nit ñi mënta wax ci yow yàlla seede na ni ci kaw rek nga jëm parce que combat dëgg la te dëgg sama baay moomu ko baayam moomu ko yonent bi yàlla yónni moomu ko dëgg yàllaa ko moom kon li yàlla moom ku ci nekk sax ci yàlla dina la yëkkati ba ci kaw den yàlla sunu borom dina la suturaal yëkkati la ba ci kaw dafa jot ñu xoolaat sunu bopp xoolaat suñu taxawaay yi xool ñun nan la ñuy doxalee surtout yéen ñi nga xam ni yéen yéen a ñu jiite yéen ñi ñu jiite nag ñi may wax waxuma mbaam sàll mii fi nekk de déedéet yéen ñi nga xam ne tey buñ leen gisee suñu xel dem fu sori luñ doon xalaat lu ñaaw luñ doon mébét buñ leen gisee delloowaat lépp ci sunu borom kon yéen. combat bi yéen yéen ci waroon a jiitu ñu topp seen ginnaaw ba ngeen toogee seetaan ba nu jug jël sunuy responsabilité waru leen nag def lu dul di ñu tàccu ak di ñu encourager mais waru leen fee nekk di ñu diaboliser waru leen fee nekk naan kii dey saaga kii dey dama ni ab saagakat akub rawalekatub sàcc kat moo gën a bon du ma ne ab sàcc de dama ne ab sàcc bii sàcc sax laa wax ki koy rawaleel moo ko gën a yées parce que man mii su ma doon ab sàcc mu wóor ma ni su ma sàccee dem gis grand Omar Thiam mii mu rawale ma mooy sàcc bu mag bi moo ma gën a yées nañuy waxante dëgg nañuy dund dëgg ànd ci réew mi bu dee nag yow Mamadou Ibra Kane li nga gisoon sëñ Abdou Karim def ko Assane juuf moo tax tey jii nii nga jéem a taxaw du ma ni ñoom ci seen kaw nga dal de ci sunu kaw nga dal ñun activistes yi parce que mouvement boobu mouvement le peuple la ñu ko jiite activistes yi lañ mouvement boobu sunu mouvement la ñun tous les sénégalais mais ñi ko jiite activistes yi la dañ fee yàgg am mouvement bu nekk créer nañ fi lu nekk demul. mais gis ngeen bii nii bii incha allahu rabbi lii tee du gañe sunu combat bii ci nin ko bëggee ak nin koy programmer du yéen lan moo tax Assane Diouf wër na mën a seeti sëñ mun Muntaxa man laa wax man ci sama wàll bopp su ma demoon Sénégal sëriñ bu may seeti sa du ma naan sàngara de du ma naan sàngara mais damay jënd sama bideelu sàngara bokk boo ma dàqee ma xam ni ku bon nga su ma ñëwee Sénégal sëriñ bu may seeti sama bideelu sàngara lay jël bokk ndeyam sëriñ si su ma leen seeti sama bideelu sàngara lay yor bokk ko seeti leen ñoom ñépp ku ma ci dàq baaxoo parce que am mbono tax ñu topp leen buñ leen gënoon a jub gën leen a baax gën leen a xam yàlla gën leen a ragal yàlla du ngeen ñu gis duñ leen topp topp ñu leen ngir wu sant de déedéet topp ñu leen ngir doomu alaaji maali ngeen déedéet topp ñu leen ngir doomu Serigne Touba ngeen déedéet dañ leen a topp jàpp ni yéen ñu gën a ragal yàlla dën leen a topp jàpp ni tey bu nekkee ci lu dul njub ngeen teg ñi ci ci njub dañ leen a topp ngir bi ñu juumee ngeen jubbanti ñu bu ñu dagee ngeen gàgganti ñu ñun loolu lañ leen toppee ñun bon moo ñu war bon moo ñu war ni ngeen jàppee ni yéen baax moo leen war ñun bu nu ñun ñun ñun ñëpp bu nu baaxee yéen ban njariñ ngeen am ci société bi ku ngeen di jàngal ku ngeen di jubbanti ku ngeen di xamal yàlla ku ngeen di xamal yonent bi ku ngeen di wax njàngalem mag ñi amul parce que ñun ñëpp a xam kon il faut que mu am ay jaayil jaayil yi nekk ci biir boroom xam-xam yee leen di jël orienté leen ba ñoom ñu mën a ñëwaat nekk ay boroom xam-xam mais diw day saaga ndey bu ñëwee du ma jige diw day màndi bu ñëwee du jige fii senegal ñaata sëriñ lañ fi xam yoo xam ne ay doomu biiral lan mais bu leen ñu tax a wax ñaata sëriñ lañ fi xam yuy naan sàngara ñaata sëriñ lañ fi xam yu yor ay doomi biiral barki arxuraanul karim xam nañ ay doomu xalifa général yoo xam ni liñ yor ci ay doomi biiral ëpp na ñett ëpp na ñeent giñ naa ko ci leeru alxuraan ndax daa tax ñu baleen déedéet gis nañ fi ay doomu xalifa général yuy màndi bay kàtt ndeyam ci mbedd mi mais nit ki buñ la respecté da ngay respecté cër bi nga xam ne jox nañ la ko xam nga fan yi dama ne woon saaga yi dootu mais parfois il faut que ngay xoroma ah. parce que dafa am nit ñoo xam ne dafa yelloo ñu xorom leen moo xam sët ay sëtu limaamu lan moo xam sëtu sëriñ Touba lan moo xam sëti Baye Niass lan moo xam sax samay sëti maam lan ah amul kii kese ce soit parce que réew mi ñun ñoo ko bokk te réew mi dafa war a mën a tege ci yoon mais Sénégal war na mën a nekk réew moo xam ne tey kii moo gën kii kii moo gën kii ngir lan kii Mbàkke la sant kii caw la sant kii si la sant kii ñes la sant kii gajaga la sant moo gën ki sant xumma moo gën ki sant kebe ay duul la amul fenn fan la ko yàlla wax fan la ko yàlla wax ko fenn la yàlla wax fan la ko yàlla fenn réew mee ñu ñor réew mi moo tax ñuy wax réew mi moo tax ñépp di ñu gis ñu ne fàng ne daj kon réew moomu tax ñuy wax yéen ñi fi nekk am ci wàll ni yéen yéen a ñu jiite na ngeen fexe ba ñun ñu topp ci seen ginnaaw dul leen ne maytul yaa ngi faqastalu parce que yaakaar naa yow mi jiitu yaa war a wax ki ci ginnaaw ni ko maytul fii maytul fii kon bu ngeen demee ba ñi ngeen jiite nekk ci ginnaaw gis li leen di lor yéen ñi ci kanam gisu leen ko lu tax waruñoo am fit wax leen ko parce que jàpp nañ ni yéen bu ngeen ñu jiitoo gis lu ñuy faqal faqastal ngeen wax ñu ko wan ñu ko sunu njariñ la kon bu ngeen ñu jiitoo gisu leen ñu nekk seen ginnaaw di gis li ci kanam te buñ leen ko rappelé wul ngeen faqastalu ci gaañu ci dañu leen koy ràppale ku dul juum amul yàlla sunu borom bindul ku dul dee mais ñi mu bind amul ku dul juum amul ku dul juum yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne tax moo tax yàlla binduñu amoon na ab saxaabaam Seydina Omar yàlla na yàlla yokki leeram taas ci barkeem ak mbooleem saxaaba ak seen sang ba tedd ba di Seydina Muhammad yonent bi da daan wax Omar fëgg taabul ji ni ko hé Jibril moo ñëw wala sa xalaati bopp la mu ni ko noo Jibril ñëwul sama xalaati bopp mu ni ko déedéet bu dee sa xalaati bo bopp la wool ñoom Alioune wool ñoom Ousmane wool gaa yépp ñu waxtaane ko le grand patriote le meilleur patriote du monde man su ma neexee ni Omar bun Xataab la man laa wax man du ma yéen de man su ma neexee ma ne Omar bun Xataab la parce que jàng nan histoire jàng nan taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ak gën gi mbindéef jàng nan ko mais fii tey sëriñ am na benn waay ju ma déggoon mu naan euh, daayira waaw daayira waaw yooyu bu daganoon yonent bi du wax Omar di ko laaj Jibril moo ñëw wala sam xel la jóge il faut que ñu sérieux il faut ñu xool ñun li ñuy dund lan la il faut ñu xool ñun li ñuy doxal lan la il faut ñun ñu xool ñun li ñu bëgg lan la il faut que xool li bëgg lan la mais lan ngeen bëgg sëriñ bi bu juumee duñ ko ni juum nga sëriñ bi bu mu defee lu dul yoon duñ ko ni defoo ko léegi activistes yi fi nekk di revendiquer intérêt Sénégal di revendiquer sunu fitir yi ñëw ëllëg ngeen bëgg ñoo def ay jaayil bëgg ñoo def ay doomi xaraam bëgg ñoo def ku tekkiwul dara man de ku ko nangu duma ko nangu barki al quraanul karim sëtub limaamook sëtub sëriñ tuubaak bu kuntaak doomi sëñ gabak sama baay laa yemale barki al quraanul karim dëgg ku ci nekk ñu ànd ak yow ku ci nekkul ñu bala ku ci nekk dañuy ànd ak yow ku ci nekkul ñu bala nan fonk sunu xeex bii fii ñu ko teg foofu la nan ko jàpp gën a dooleel sunu bopp parce que loolu moo ñu mën a dimbali lan moo tax ñun waruñoo seeti sëriñ si lan moo tax sëriñ si waruñoo ubbi seeni porte ba tax Mamadou Ibra Kane doomu xaraam gi taxaw sunu grand patriote yi nga xam ne dem nañ di wax sëriñ bi li xew ci réew mi nga taxaw ni ñii waruñu woon a gis sëriñ bi sëriñ bu fi activiste yi seeti nga bañ taxaw di leen ñàkk kersa dina la laayfal saaga sa ndey ba nga nekk nit barki alxuraanul karim ak ku la mën a jur ak koo mën a doon Macky Sall ñaata nit la fi rey ñaata la sàcc ci alalu réew mi fu mu dem ñu ubbil koy pont Aly njaay noonu Boun Dionne noonu Bassi ma dikke ñaa mii ñu ne bàyyi na politique avant muy dem ñaata milliards la sàcc ci alalu réew mi mais ñooñu sàcc si buñ mënee gis euh, sëriñ si mais ñiy xeexal taalibe yi sëriñ si ñooñu waruñoo mën a toog ak sëñ bi nan bàyyi suñu caaxaan yi waaye nan bàyyi suñu tappale yi ñu nekkee waaye nan bàyyi doxalin yi nga xam ni du dëgg ñu koy doxal il faut que ñu sérieux quoi mais sàcc bi moom mën naa gis sëñ bi agresseur bi mën naa gis sëñ bi violeur bi mën naa gis sëriñ bi katt katu jabaru jàmbur yi mën naa gis sëñ bi tegkatu dil bi ñépp mais ñi sell moom ñi baax duñ gis ki baax ki baax kay ki baax la war a àndal ki baax ki baax la war a àndal yàgg nañ fee wax ni politiciens yi ñoo yàq sëriñ ci ñoo leen bon loo ñoo leen naanloo sàngara ñoo leen sàccloo ñoo leen fenloo politiciens yii la léegi ñun war nañoo seetaan politiciens yooyu ngemb journaliste bu tekkiwul dara mu bëgg a ñëwaat li nga xam ne ñun ñu ngi koy xeex mu bëgg a ñëw gën koo dëggal ci sëriñ ci loolu mooy ay politiciens yi yéen dee leen dem ci sëriñ si ah dee leen fenloo sëriñ si dee leen sàcc di leen jox dee leen leen ger man noonu laa ko gisee de noonu laa ko gisee parce que ñi jub ñiy xeexal réew mi buñ mënta gis euh, sëriñ si kan moo war a gis sëriñ si kan moo ko war a gis mais ñun fii la ñuy nekk di naxante di débat ci loo xam ne waruñu cee sax débat ba kañ tey ñu war a focus ci loo xam ne tey jii nga xam ni élection locale yi nga xam ne ñu ngi koy xeex Macky puusaat ko ñun ñun taxawaay bi ñu war a taxaw man boog man su ma sañoon waa Malika dañuy xëy jël ay yat barki limaamul ay yat lañuy jël ay yat kër ba Demba gi ngeen di njëkkee taxaw ci buntu kër gi taala boo jaaratee maire ñu toj sa cottu nday dem maire taxaw xaar ko seeni mandat jeex na bàyyi bii ñu leen fi bàyyi deux ans trois ans loolu ñun la war a neex mais amuñu ay dirigeants yu baax te bu ngeen gisee politiciens yi ñun ñu sonal leen fàttali leen lan moo ko waral parce que xam nañ ni fii ñu ko teg buñ ko teggiwul sëriñ ci dinañ ñëw dugg ci biir langue politique gi dugg ensemble dàq leen ñoom ñëpp parce que foofu la réew mi jëm giñ naa ko ci alxuraan Sénégal lii ñuy xeex ñun ñii dañoo gëm ni dinañ ko xeex ba dee mais tôt tard li ñuy xeex dañ koy gañe incha allahu rabbi tôt tard dañ koy gañe parce que sëriñ si bëgguñu ku leen yàpp te gis nañ ne ak yabeel mu ngi jóge ci askan wi di jëm si si ñoom dofuñu amu ci kenn ku ci dof ci ñoom gis nañ ni ak yabeel mu ngi jóge ci askan wi di ñëw ci ñoom te ñoom seen cër du askan wi yàpp leen seen cër du askan wi ñàkkal leen fayda seen cër mooy askan wi weg leen seen cër mooy askan wi di leen laaj lu ñu xamul ci diine ak lu ñu xamul ci réew mi ñu leen koy wax ñoom loolooy seen cër kon seen cër boobu bu ngeen toppee borom maladie yi ngeen xam ne riibaa lañ leen di indil di ngeen ñàkk seen cër boobu li leen yàlla defal xam leen ko li leen yàlla dénk xam leen ko li nga xam ni yàlla boole nañu ko muy diine ji nan ko xam bokk ko sàmm ànd sàmm jikko yi nga xam ni ku ci mel ni professeur Ababacar Mboup ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd gu ànd ak wér lu baree baree baree baree bari moom moo ko leeral te taxawaay bii mu am taawu Serigne Abdoulaye Thiaw xalifa Laayeen moo ko waroon a am taawu sëriñ Muntaxa sëñ Kaso Mbàkke moo ko waroon a am taawu sëñ Mbay Si Mansour duut si moo ko waroon a am ñoom ñoo waroon a am taxawaay boobu seen doom yi seen taaw yi ñoo waroon a am taxawaay boobu mais boo demee sa laayeen yi ñu koy quarante cinq hectares yi leen état de Sénégal jox Malika ñu ngi ciy waaja a di si tamante dëmm loolu lan tal ba tey yéen laa wax de ba tey yéen laayeen yi déggagu leen quarante cinq hectares yi nga xam ne joxe nañ ko benn programme xanaa lenn université maam Babacar daal déggagun naa ko ci université déggagun naa ko ci mais ñu ngi toog di leen xaar de ñun aka ñoo pare te xam li ñu pare toog di leen xaar yéen rek la ñuy déglu nangam ak nangamay am daal la ñuy déglu mais suñu projet force day am ci biir parce que communauté laayeen lan wax communauté laayeen am na nag luy ruumandaatu ci suuf loo xam ni ñoom dañoo bëgg maanaam ñi nga xam ni ay Cambérène la nekk ak Yoff sax du noo sëriñ si am na ay golo sëriñ si am na ay golo am na ay nit ñu yées am na ay nit ñu bon mais nag euh, yenn taalibe yi nga xam ni moo xam ci murit yi tiijaan yi xaadir yi laayeen yi lii da cee ànd ak ñun giñ naa ko ci leeru alxuraan da ngeen di am dam parce que Seydina Limaamu lii la doon xeex sëriñ Touba lii la doon xeex Alaaji Malik lii la doon xeex seexal lislaam lii la doon xeex bu leen topp sëriñ si ngeen xam ne genn wàll gi ay sàcc lan ak na ma naankati sàngara katt jabari jàmbur yeeg biiral doomu jàmbur yi di ko bañ liñ ci xam dafa bari te saar yu mel nii moo ñuy yëngal ba ñu wax loo xam ne duñ ko bëgg a wax te buñ ko waxee dëgg gu wér péng lay doon ki xamul nag mooy toog fii ah dafa mën a duul naan bu leen ñu tax wax li ñu xam li ñu xam bari na lool mais lan moo tax ñun duñ waxante dëgg tey jii Serigne Touba bu amee fukki sët yu baax am na quinze sët yu bon ñëpp mënuñoo baax. mais yéen ñi nga xam ne yéen a baax du ngeen jël seeni responsabilité il faut que ñu jël suñuy responsabilité yéen sëti bàyyi laay yi fi nekk jël leen seeni responsabilité ci combat góor jigéen yi LGBT yi nekk ci réew mi yéen setu Serigne Touba yi jël leen ci seeni responsabilité sëti Seydi Hadji Malick yi jël leen ci seeni responsabilité sëti Seex al Islam yi jël leen ci seeni responsabilité parce que loola la sunu mag ñi doon xeex ñun sunu coordinateur yi nga xam ne ñoo diriger le peuple ñoom dàmbooj bi ñu fa demee Serigne Mountakha wax na leen ko mais wax jooju dégg-dégg la laaj wax ji Serigne Mountakha wax dégg-dégg bi xam nga mooy lan tey lan war a gën a taxaw tey lan war a gën a takku tey lan war a gën a nekk benn tey lan war a gën a sóobu ci xeex bi tey lan ci war a gën a sóobu dafa am benn waay bu ni ma dafa maa woo barki ni ma yéen du ngeen daan dal ci kaw sëñ daxa ma ne ko li may li may faral di wax rek moo am kon ñun ànduñoo kenn dëgg lañ àndal dëgg bis boo waxee dëgg ñu parce que du yow lañu ñu àndal du yow personne mais li ngay dekk la man ñaata nit ña man Malika gëm a dëkk ñaata nit a may xas ñaata nit a may saaga ñaata nit a may tuumaal ñaata ni damay tuumaal te pourtant lii may wax ñoom bëgg nañ ko mais dan may tuumaal di ma waxal lu bon na nekk benn waaye fonk sunu bopp bëgg sunu combat bi jàpp ko góor góorgóorlu Sénégal dem ci kanam ñun loolu moo ñu mën a may ndam mais nekk fii di saagante ñun taalibe yi jéemu ñoo ànd sëriñ si di ànd seen biir genn wàll gi di mayante ay oto di mayante ay kër ah di mayante ay gel ñun ñu nekk fii mënuñoo fex barki alxuraanul karim li may wax lu wér la lu wér la tey par exemple fu ci mel ni Malika Géem a dëkk am na ci famille yoo xam ni boo fa demee di ab caga ab caga ab caga laa wax de caga clandestin mu ngi ci biir kër gi Malika Géem a dëkk am na ñu may xas ñoo xam ni seen baay jur na caga jur naankatu sàngara te seen problème yooyu seen baay yàq ci biir kër gi duñ ko lijjanti de mais ki nga xam ni musuñu koo xamal dara musuñu koo gisal lu dul lii muy wax ci réew mi il faut que ñu ut ay motif yu ñu teg ci kawam wax loo leen ñu wax loo leen ñu wax loo leen barki alxuraanul wax loo leen ñu am na ci benn waaye dama koy junju ci live bi mais su ma déggaatee mu wax dinaa ñëw ci nankatu sàngara bi baayam jur ak caga bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mooy waajooju nekk Espagne laa sant mbay xawma te dëkk Malika seen duul yi leen ko yow sa yaay nan la mën a jureeb caga ngay yàq deru jàmbur sa baay nan la war a mën a juree nankatu sàngara boo xam ne day dawal ay oto bay saaraan ci biir camion yi yow nga taxaw gis kuy ay def ay live di revendiquer ay droit am nga taxaw naan daa mandi daa naan sàngara daa tux boon foo ko gis taman gis naa sa doomu yaay yoo jur koo xam ne yaa judd mu judd dañ koy tër di laal rek doo wax ci loolu sa baay jur ab naankatu sàngara doo ci wax ñun sulliwu ni mbóoti jàmbur de mais li ñuy xeex ku ñëw di ñu tuumaal ñu sulli say mbóot lu ñu waay xamal nag wax ko man wax naa ko fi ba tàyyi nee naa leen sa yaay ji la jur yaa ko tëddee taxul ma noppi liir bi juddu léegi yaa ko laal mu dee noppi ma laa la wax wax day jeex daman la ngeen taxaw naan ma sa yaay ji la jur yaa ko tëddee giñ naa ko ci leeru alxuraan noppiloo ma billaahi loolu noppiloo duma ne sax man noppiloo liir bi daa juddu léegi ngeen laal ko mu dee noppiloo dal leen ngeen jug ñu ànd nekk benn xeex sunu combat bii nga xam ni moom lan war a xeex moom moo nu war mooy li nga xam ne tey ëllëg buñ ko xeexul buñ duggee ci bàmmeel yàlla dinañu ko laaj malika ñu ci bari lu tax ñu jëfur ay imam yu may dal bàyyi dem ba gajaga bu xamul li ci dëkk bi bàyyi njiin joor xam na li ci dëkk bi bàyyi dem ba gajaga bu ngeen nee mag la balaa maa dee ñu naan magum quatre-vingt ngay saaga ana rakkam ji topp ci moom li xew ci dëkk bi xam na ko du ko wax dooma xaraam yi yéen seen bàyyi baaxuñu bu ngeen jógee di yàq deru jàmbur yi te yéen liñ xam ci seen bàyyi buñ ko waxoon yàlla tukkal àdduna bi bu yéen waa Malika laay waxal giñ naa ko ci leeru alxuraan bañ leen maa maytu yéen doomaraam yi moo xam ñi sant mbay moo xam ñi sant kebe moo xam ñi sant seen moo xam ñi sant gajaga samay mbokk ñi sant faalak ñu ci baree bari seen bàyyi jur na caga jur na naan katu sàngara ngeen di wër doomu jàmbur joo xam ne xamu leen lu ko ndeyam bootee di xeex li nga xam ne lu ci ëpp njariñ li yéen ñi ci biir réew mi la ngeen toog di yàq deram Malika yéen ñi yàq sama der ku ma ci bëgg a xam loo añee tey lu sa silib bu sa jabar jiital sax ma xam ko da ngeen a mën a xam li ma nekkee ñun dañoo am ay pion lu ñu bëgg a xam dañ koy xam. lu mu bëgg a xam dañ koy xam giñ naa ko ci alxuraan lu mu bëgg xam ci réew mi dañ koy xam lu ngeen di wax ci ñun ay duul la lu ngeen wax ci sénégalais de la diaspora lu dul passé ay duul la te sunu passé mënu leen cee wax lu ñaaw moo tax ay jamono am na benn waay bu ma woowoon naan ma temps yi dangaa xabtalu dama lay dégg nga naan sëriñ si kaay leen ñu ñaanalante ma ne ko waaw parce que ñun dañuy lekk lu lew di di ñàkk di lekk lu lew tumu ranke mais tumu ranke gi du da nga ñàkk alal de déedéet tumu ranke gi nu tumu ranke mooy li ñuy rêve li ñuy xeex di ko misère pour sunu réew loolu rek kay sunu tumu moo tax kaay ñu ñaanalante da ngeen am xam-xam da ngeen a am baatin kaay leen ñu ñaanalante kaay leen ñu ñaanalante torox wala dee léegi bàyyi leen seen caaxaane waaye leen ñoo set gënoo leen ñoo bëgg yàlla gënoo leen ñoo jige yàlla gënoo leen ñoo bokk ci réew mi gënoo leen ñoo doon taalibey limaam ak Serigne Touba ak Alaaji Maalik ak taalibey sëñ Gab gënoo leen ñu koo doon ngeen mag ñu njëkk ñoo juddu wala ngeen njëkk ñoo ah, xam sëriñ bi wala seen bàyyi njëkk ànd ak sunu bàyyi sëriñ bi taxul ngeen gën ñu taxul ngeen gën ñoo yeey ci sëñ bi taxul ngeen gën ñoo yeey ci yonent bi taxul ngeen gën ñoo yeey ci yàlla maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar fii laa yemale vidéo bi parce que loolu rek laa laa bëggoon a wax mooy li nga xam ne Mamadou Ibra Kane doon na ko wax ci sunu dirigeant yi parce que sunuy dirigeant laa leen tudde Assane Diouf sunu leader la Clédor seen sunu leader la Dame Mbodj sunu leader la Abdou Karim Gueye sunu leader la Cheikh Omar Diagne sunu leader la parce que ñooñu ñoom ñooy ñoom ñoo téye mouvement le peuple mouvement le peuple bi nga xam ne ñun askanu Sénégal ñun ñëpp la ñi nga xam ne ñoom leen jiital waa APR ñu ngi nii fu ñu toll di tagg Macky waa Pastef ñu ngi nii fu toll di tagg Sonko waa réew mi ñu ngi nii fu ñu toll di tagg Idi kon ñun suñu mouvement bi nu yor am suñuy leader duñ leen tagg ku leen saaga ñu toj sa cottu ndey ku leen du duulal ñu toj sa cottu ndey ku leen fenal ñu toj sa cottu ndey duñ ko ci may kenn ah. Assane Diouf bu ko neexoon heure bii du ko fekk Sénégal lan moo ko indi Sénégal lii may xeex moo ko indi Sénégal ba gis nga tey ñu ngi neen ci tànk yooyu la nekk ak Ousmane Tounkara mais fii lan leen di xaar moo tax yow ñun la Macky Sall la amoo xel yow ku taxaw États-Unis di la menacé ba nga tiit nga ne kii damay rey nga ne danga koy jël indi ci réew mi yow koo yab kan nga yab kan nga yab su ma waxee ci Ousmane Tounkara dinaa wax ci yow te wur bugguma woon a wax sax ci yow parce que doo président bu légitime billaahi Macky Sall du président bu légitime duul rek lay def Macky Sall sëriñ buy fen ci réew mi moo la jàngali duul sëriñ buy lekk sàcc Macky Sall la jox xaalis bi mais ñun lan moo tax duñ waxante dëgg topp doomu xaraam yi ngeen xam ni tekkiwul dara indi lu ñu lenn ci réew mi kenn du ko wax yéen waa Malika yéen laay waxal yéen ngeen am ab sëriñ buy naan sàngara koo xam ne da ngeen barki rasulaay romb na ma ci mbedd yi di këlëng-këlëng yi waaye ba tàmpe nday ci miir yi lu xeexal dëkk bi man mi taxaw di xeexal dëkk bi ngeen di ma duulal seen dëj jaw nday yéen ñu koy wax bàyyi leen seen caaxaani waay jug leen ñu xeexal réew mi bàyyi fenelante bi li ñu bokk ñu jàppoo ko mu jëm kanam muy Sénégal mais kenn ku ci nekk di ut bës ñii di ut siiw malika ngeen taxaw naan ay estaat ay newetaan yéen newetaan yi lu mu leen may ñaata coupe malika jamono muy jokkoo ban coupe la la mas malika masa gaña tey mu am lu ñu indil man ay jamono li tax ma doon ab temps sama benn waay bu ma woo ni mu mais lom man daa am lu ma jaaxal yow ni nga meloon ci nawetaan yi léegi ma ne ko parce que damaa yaakaaroon ni coupe yi gaayen ab xaalis la indi ñu mën cee defar dëkk bi man ay nawetaan ni ma daan solo taxaw ngir nawetaan yi mu jaral ma ko jaralu ma ko ci dëkk bi noo kon man doomiraam laa moo tax ay ñoom njoolum jamono yooyu njool njool lañ ko wax xaw ma ñu ko njoolum jamono bi sa dëjjëw nday yow mi nii xaw ma yaay président supporter ñaata at yaa ngi ci mbir mi jël leen yëf yi sport bañ bañuñu ko de terewul sport de mais sport boo xam ne daf lay jural yaafus sport boo xam ne daf lay jural perte sa pouvoir sport boo xam ne daf lay jural sa àq ak sa yelleef lépp na nax saay non sport boobu baaxul bu ngeen gisee ñuy wax ci làmb yeeg newetaan yi loolu la parce que ñun ñoo ciy dem ak suñu rakk yeeg suñu jarbaat yeeg sunu frère yi lan la leen jural lan la leen jural man ay nawetaan man naa cee wax ñu dëkk Malika di ma seetaan réunion supporter mësta am te jëlu ma parole ñu bari sama parole lan doon xaar ey duudu jëw na de noppi leen noppi leen nga wax gaay ñu tàccee dooni pétrole dooni lan ngay wax waay waa saint daal waa wala waa bisaab bi daal wala waa Jokko bu ñu naree sonal nan dem suul suñu yet ñun yooyu dong lan daan wax man boobu amul daw nan dem teeree miine ko suul suñu yet def nii def naa mais stratégie yooyu ñu am ci newetaan yi am ko ci làmb ji am ko ci leneen ak leneen est-ce que duñ ko am ci réew mi man combat bi looloo tax ma gën cee engagé wu man manifesté naa ba police rek lu ne di ma wër ci manifestation yu ñàkk fayda ay xeex yu ñàkk fayda police bu may jàpp ndeem damay jàpp ci lu ko jar billaay du ngeen ma jàpp ci yàmba du ngeen ma jàpp ci cottu ndeem ci lu ngeen may jàpp tëj ma wala rey ma ci xeexal réew mi dootuma dem ay stade dootuma dagg nday billet ngir mbër dootuma dagg nday billet ngir footballeur dootuma dagg billet ngir kenn du waykat du kenn ndeem fu ne def nañ fa suñu xaalis amulun benn njariñ mais réew mi bin gisee ni ñu ngi ciy def suñuy ñaar fukk ak suñuy fukk mais dañoo gis ni non ndekete fii moo jara defub xaalis biñ tàmbalee di wax ci réew mi ba maar di wax ci réew mi ba ku ne bañ ñu dem nañ ba gis loo xam ni noo ndekete fii la ndekete fii la mais ngeen topp newetaani guddi ASC e bi ASC e bi ay waaye datam nday ASC e bi waaye ngeen naan ñu boo xam ne mënta jël coupe ba defaral jigéen ñi marché ASC boo xam ne gars mënta jël coupe ba déwén du màjjal ASC boo xam ne année bum jëlee coupe année ba sa des lay gën a torox ah di jël ay 3 million ay 4 million di ko def cib ASC seen jabar yi amuñu fun juree seen doom yi amuñu fun leen vacciné amuñu fun leen ñàkkee yéen a ñàkk jom su ma gisee ay xaadim mbay mi yow yaa ngee ñaata jabar yow sa jabar bu biiroon bay jur fu muy juree du ngeen fonk eh, du ngeen fonk dëkk bi ñu am ay hôpital am ay matindike doomu sarum ndeyam yi ngeen nekk ci newetaani xëbër xëbër bu ngeen jugee di yàq deru jàmbur yi nangam nangam seen bàyyi jur yi caga jur ay naankatu sàngara ngeen di yàq deru nit ñi ci dootu ñu leen fi may dara dinañ dem ak yéen ci xeex bi ba jeex takk seen caa waaye seen caleçon yi bàyyi sax dinañ ko génne ndeyam weer ko fii ci mbedd mi parce que ay doomu xaram ngeen loolu ngeen yelloo Malika yéen laay waxal amul fami bu ma ci épargné ku ma ci dëggati dootuma ci xool képp ku ci waxati dootuma ci xool koo bokkal ndeeg bàyyi parce que am na ñu ma bokkal ndeeg bàyyi te xoolu leen ci ñooñu ngeen di yàq sama der kon yéen ñi nga xam ne yéen a yàq sama der dootuma ci xool seen mag sama xarit la seen yaay sama xaritu yaay la woon seen papa sama xaritu papa la woon yéen samay xaritu mag ngeen dootuma ko ci xool li may wax chaque jour mooy gis nga ñiy nekk ci réew mi di def seen yëfu golo yi dàq ñu ñu ko de ñun dañoo am lu ñuy jomb ñoom amuñu lu ñuy jomb gis nga jomb jomb yooyu nag buñ ko jëlee teg ko fële ñëw leen ci dem ba jeex ku ma ci déggati def sama live nga naan daa màndeek daa tux boon kasa baay biiraloon dinaa ko wax ndeyam sa doomu baay gi nga xam ne am na ñetti doom yu bokkul baay yépp laay wax ndeyam sa baay naankatu sàngara bi mu jur ñëpp lay yoole ndeyam fii diw baayam jur na naankatu sàngara diw day naan sàngara diwey ndeyam diwey baayam naa ci déggati benn booy mu waxal ma loo xam ne tegoo ci sa bët wala amoo ci lu la leer nga wax ko lu dul dëgg yi may wax ngir ñoom taala gajagaak imaam yu toj seen cottu ndey yi ngeen xam ne tekkiwun ci dëkk bi lëfal ndeyam imaam yoo xam ne yéen ñi jiite dëkk bi nekk ay conseiller maire nekk ay meer ñoom ñëpp ñii seen bàyyi ay imaam lan ñii seen mag yi nekk imaam ñii seen nijaay yi nekk imaam ngeen nekk ndeyam ci dëkk bi ànd ak sëriñ ci di paacoo ndeyam ngeen ni duñ wax man mii maay wax ndeyam ku mu metti xaral sa cottu ndey dellu ci. abonnez sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.